final raw gàddu bi arbitre bi sifflé na ko Mar sek ak usmaan ngoor njaay Ngor Mar Seck moo la féetee càmmoñ Ousmane ngoor njaay moola la féetee ndijoor ñu ngi noonu ci final raw gàddu gi Ngor Mar Seck ak Ousmane Ngor Ndiaye ndaysaan ngoor Mar Seck moola la féetee càmmoñ Ousmane Ngor Ndiaye moo la féetee ndijoor moo la wan ginnaaw Ngor Mar sekk Ousmane Ngor Ndiaye ngoor Mar Seck Ousmane Ngor Ndiaye Mar Seck Ousmane Ngor Ndiaye ñu ngi noonu ndeysaan ci finalu raw gàddu gi daw na plaqué ko ndeysaan Ngor Mar sekk Ousmane Ngor Ndiaye génne na ko saaku yi avertissement Ngor Mar Seck arbitre bi sifflé waat na arbitre bi sifflé waat na ñu ngi lewaatoo ñu ngi lewaatoo Ngor Mar Seck ak Ousmane Ngor Ndiaye plaqué na ko Ousmane Ngor Ndiaye yëkkati na ko dóor na ko ci suuf daan na ko Ousmane Ngor Ndiaye daan na ko daan na ko